وإنك لعلى خلق العظيم مدن سانتا نحمود نحمو وحسب تايسيا يونا صلي على البدر ما عمل هادي تحيلا زيارة الله يا رحمن يا الله سليش يا حبيبي Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum jàngal na leen ci gàmm Tiwaawan ci ñetti fan ya mu ne yonent bi si boppam yàlla pendewu ko ak jëmmam ndax yàlla ëpp na loolu mhm. yàlla dafa jël yonent bi bind ko ci leeram ndax bu dul leeram dara du leer mhm. ndax damay tigg ñu ne roox loo mhm. tax tey thème bi dañ koy tëllu ci fondement roox mhm. suñu boroom dafa euh, yonent bi mu ni ko Muhammad yonent bi ne ko naam yaa rabbi mu ne ko naa palan bu ne seytaane yàqu mais dama xamul ban plan la mën a teg yeneen ti ko may ma ma réfléchir yeneen ti bi ne ko tànnal